baccalauréat technique yoyu mo dans le passé baccalauréat T1 ak baccalauréat T2 baccalauréat T1 ak T2 de nous doonoon ay baccalauréat yo xamanteni ni nañu ay limite T1 mécanique générale la don def T2 don def électrotechnique et puis dañ le gis ni baccalauréat yoyu souvent buñ xale yi buñ ko amane ba paré pour dugg ci lycée manam enseignement supérieur fu leen neex de xawa jafé donc ñu réformer baccalauréat bi fexé ba nga xamanteni xalé yi du point de vue des travaux pratiques ak du point de vue aussi des matières scientifiques dañuy fexe ñu am niveau boo xamante ni day mucc ayib donc li nga xamante ni moo intéressé travaux pratiques yooyu moo ñu fi tax a teew tey jii kees yi ngeen gis ay équipement lañu yoo xamante ni euh, la plupart ay équipement électronique d'habitude xalé yi dañuy liggéey ci ay tour di defar ay pièces mécaniques bu ñu nekkee bac bu ñuy def bac T1 wala ñuy def ay câblage bu ñu nekk bu ñuy def bac T2

bâtiment yi nga xamante ni moo ko war a héberger bâtiment yi daanaka pare na bu dee c' est le cas du lycée de la Fosse bu dee Ndar seen bâtiment pare na bu dee Kédougou seen bâtiment pare na donc équipement yi dafa doonoon équipement yoo xam dañ ko doon xaar xale yi di ko xaar ñun ñi nga xamante ni ñoo leen njaboote aussi doon leen xaar ndax euh, jàpp nañ ni ay équipement la yoo xamante ni bu soobee yàlla bu bu ko xale yi découvrir commencé di ci liggéey dana doon loo xamante ni day am signification lool ci qualité enseignement apprentissage yu mais aussi des ubbi ay pour les enfants. très matériel bi dafa am parce que le projet FPEC bu ñu mettre en place en 2015 euh, avons choisi ñett lycée technique Les lycée technique de la Fosse Maurice de la Fosse André Patavé de Saint-Louis ak lycée minier de Kidou. pour que lycée nek un exemple ñu avons lycée d'excellence au Sénégal mais aussi ci sous-région bi pour atteindre l'objectif nous avons une ñetti bànqaas premier banque, bi dañu pour la première fois dans le ministère dañu am ay lycée technique yu am contrat de performance ñu avons koy déroulé depuis 2015 ak lycée technique yi beneen banque, bu ñu doon liggéey ak lycée technique yi avons réhabilité pour que aussi lycée technique bi euh, suñuy jumtukaay nous ñuy jàngale mu mun a ak jamono mais troisième bi nous avons ko réhabilité ba pare ñu équipé parce que aussi dafa am lañu wax bac rénové yi nga xamanteni projet bi daf ko ñëw di ko accompagner donc bac T1 ak T2 yi ñu te xamone euh dootul am léegi bac STI2D mo koy remplacer mais pour que bac STI2D bobu ñu mën ko dérouler matériel yi c'est indispensable mënul ñak ci matériel yi la xalé yi di jàngee. ay jumtukaay yo xamni dañ ko jagleel lycée technique industriel Maurice Delafosse lycée technique André Pétavin ak lycée technique industriel et minier de Kédougou équipement yooyu nag ay jumtukaay la yoo xam ni bi ñu milliards et 500 millions de francs CFA madame deux milliards 500 millions de francs CFA moom mooy njëgu matériel boobu mu matériel qui est dañ ko jagleel laboratoire yi nekk ci biir lycée scientifique yooyu équipement yi nag ñu ngi ko jotee ci biir benn projet boo xam ni état bu Sénégal banque mondiale ak agence française de développement ñoom ñoo bokk financé ko muy projet boo xam ni liñ ci jublu mooy ñi nga xam ni dañuy wut liggéey ñu fexe ba jox leen li nga xam ni moom mooy xam-xam bi ak jumtukaay yi pour bu ñuy wut liggéey mu yomb ci ñoom waaye itam ñu fexe ba entreprise yi nga xam ni ñoo nekk biir Sénégal ñu nekk aussi entreprise yoo xam ni entreprise yu xarañ la ñuy nekk projet bi nag dafay permettre li ñuy wax offre de formation maanaam école yi nga xam ni ñoo war a recevoir xale yi war a formé wu ñu gën a centre de formation yoyo. waaye itam dafay permettre yenn secteur d'activité économique yi lu melni walum bâtiment walum tourisme walum horticulture ak walum tourisme ñu fexé ba secteur d'activité yoyo. ñu mën ci tagat ndaw yi ba nga xamni buñuy soxla out soxlaa ëlëk du nekk lo xam lu jafale ci ñom itam entreprise seen ñu mën a nekk entreprise yoo xam ni dañuy compétitive